mooy sama souffre douleur su ma meree Aziz bàyyi laay dóor waaw parce que ñoom samay bàjjen lañ samay doom lañ su ma leen gëjee dégg dama leen di mere mais su ma ci meree kii ci kii laay daanu si ñoom ñëpp ñu bëgg ma nag fonk ma donc dem bi ma aale ne koo demal sa doom a ko gën na nga ñëw Tiwaawoon ci Aziz euh, moo tax ma xëy si ba teel daal sama oto ñëwal ko Maysa ak seega li ngay defal Seydi Hadji Malick Sy te sa maam ju baax ja daan ko ko defal nga di ko defal sa turandoo ba mu wone ginnaaw nga yokk ko ful ko yàlla na nga ko gën a mën yàlla na yàgg sagu tarixa bi nga sagu kër gi nga sagu kër Cheikh Seydi Hadji si nga te lii nii dañuy wax rek waaye bu ñu amoon fanweeri Aziz Ndiaye macha allahu taala kon day gën a yokk day gën a neex day gën a baax yàlla na tarixa bi téye la ni mu téye woon sa maam Alima jigéen ndax bu mësaan jógee dëkkam ñëw sama dëkk sama kër maam lay yësal gëleemam ñi sama mbokk laa seet si kon kii sama doom ma jërë ngeen jëf